Assane Samb maa ngi lay nuyu. maa ngay euh, analyste politique sa xel màcc ci wàllum euh, politique gis nañ ni euh, démb njiitu réew mi jot naag jënoog ñi nga xamante ne ñenn la ci suñu ay mbokku taskatu xibaar lan lañ mën a jàpp ci kàddu yi mu jot a yëkkati. waaw jéem effectivement dalal xel. ci day dem wala du dem élection yi day am wala déet ak euh, vraiment nan lañ ciy demee mais leeral gi nag dafa dafa leeral dafa leerul maanaam euh, sañu ma sañu ma wax ni sax dafa gën a lëndëm mais en tout cas euh, suñu xel dalul ci bëree bëri surtout ci question yi nga xamante ni moom lañ jàpp ni moo ci ëpp solo rawatina bu njëkk bi mooy li ci date bi xam nga wax ci lu leer ne dafa bàyyi dialogue bi ñu xool lu jëm également ci deminu élection yi après le 2 est-ce que dañuy euh, jël liste 19 yi candidats yi kese wala est-ce que dañuy reprendre processus bi yëpp loolu waxu ci lu leer est-ce que à partir du 2 day dem wala déet loolu aussi waxu ci lu leer parce que daf ni euh, euh, jeexal naa sama mandat le 2 laa jeexal. le deux laay jeexal ak le deux laay dem nag bokkul yaakaar naa boo digloo di nga gis ni euh, ci point essentiel yooyu nga xam ne ñun ci lañ ko doon xaar point yooyu yëpp daf ko renvoyé au dialogue euh, andil ñu ak jiixi jaaxa jiixi jaaxa bi mooy fi nga xamante ni jàpp nañ loi bi dafa leer président daf ni dañ koy dialogué euh, benn par exemple ci décision conseil constitutionnel lu jëm ci dix neuf candidats yi parce que normalement Euh, loolu lu conseil constitutionnel décidé rek euh, ñëpp dañ ci war a tënku euh, donc président jàpp ni day invité sax candidat yi nga xamante nañ jàpp dañ leen recalé ak yooyu ñu waxtaane waat lépp gis nga point boobu aussi leerul dem gi également su fekkee ne le deux dafa dafa war a dem l' la constitution daf ni du dem tant que président bu bi ñëwul te loolu logique la maanaam président bi fi nekk mu ngi dem rek lu dul euh, bi nga xamante ni président bu bees bi ñëw nañu installé ko mu defal ko passation de service ci lay mën a demee yooyu yëpp mu mu yóbbu lépp dialogue wala conseil constitutionnel ni dina consulter éventuellement le conseil kon nga gis ni point yooyu yëpp daal euh, ñu doon ci wut lu leer leerul euh, lépp daal li mu wax li nga xam ne peut-être mën nañ jàpp mooy moom pare na ci pouvoir bi le deux mais bi mu nee pare na ci ba pare na dafa yokk ni moom du démissionné benn Euh, parce que ñaar aussi mu ni judd juridique du am c'est-à-dire loo xam ni dañ naan pouvoir bi kenn nekk foo xam nga doo jékki-jékki rek yanu say bagage daal ni bon yéen a mbëtoo ko réew jot na bon au léegi nag euh, seenam réew ngi noonu xool leen de du donc da ngay gis ni euh, vraiment des na suñuy xel gën na jaxasoo parce que tamit dialogue bi dañ ci am benn ñaari problème bu njëkk bi na fi ni quarante huit la la lundi ak mardi ñun jàpp nañu ne 48 heures gàtt na parce que dafa invité ñëpp invité ñëpp nag te gars bokkuñu intérêt. Euh, parce que li Diomaye président di wax ak li Karim président di wax euh, bokkul euh, li aar suñu élection di wax ak yeneen ñeneen waa Benno la ñuy wax bokkul ñooñu ñëpp boo leen dajale pour ñu am position yu yam. Euh, dafay nekk loo xamante ni day jafe trop trop trop. Mhm. waaye xam leen ne fi mu toll nii démb ci ay kàddoom ne ñaari fan ci weeru avril daal la nar a jeexal mandaawam mën nañ wax ni euh, xel ñaar amatu ci ci liñ doon wax naan xëy na dafa bëgg a wéyal euh, mandaawam jëm ci jogante njiitu réew mi tamit. waaw xam nga bu waxee loolu kon ni ma ko waxee sànq rek bu waxee loolu dañuy le 2 avril lay jeexal loolu mooy géej am na ndox parce que li ñuy wax noonu ñun xam nañ ko. moom xam nañ ni le deux lay jeexal euh, du point de vue des textes de la constitution maintenant dafa am situation exceptionnelle moo xam ne moom moo repoussé woon élection yi conseil annulé repoussé bi mu mu déréglé date yi ñu war a gérer situation exceptionnelle bi gérer ñu situation normale dañuy gérer situation exceptionnelle loolu la président fàtte wax te comme dañuy gérer situation exceptionnelle rek mën na am ay décision yoo xamante ni wala ay situation yoo xam ni te foofu nag la ñuy xaar ay tontom moom par rapport par exemple comme ni ma ko waxee est-ce que day deux day jot rek mu takki bagage wala deux day jot mu xaar l'installation de l'autre président hmm. est-ce que dañuy programmer date bi avant le deux gaawtu def tout pour respecter le deux wala est-ce que mën nañ ko programmer après le deux question yooyu yëpp le Sénégalais di di laaj te question yooyu euh, président tontu ci ah <laughs> amul réponse donc euh, wax ni pare naa le deux bon loolu mooy géej gi am na ndox euh, léegi nag loolu ñëpp xamoon nañ ko léegi nag comme dafa am situation exceptionnelle Euh, parce que moom moo ko créé bi muy reporter élection yi ba nga xam te ni kenn mënatu respecté délai amoon bu jëkkoon à partir de ce moment là oto bi paralysé na am na paralysement donc paralysement bi day jàpp délai yëpp loolu aussi waroon na waroon na ko gérer waale ci ci communication bi. datu élection bi defe naa ni moom la ñëpp doon xaar démb ngir mu yëkkati ko ci ay kàddoom euh, waaye mujjuta am euh, mu mel ni nag concertation nationale la woote ngir ñu mën cee dem altine gi euh, gi ñu jëm nii ndax mën nañu xaar xëy na date bi ñu fixé ko mardi au plus tard. bon date bi moom fixé ko mooy gën yomb leneen li mën nañ d'accord ñoom ñëpp ci ay na xam amaana ay la yëwen en fonction aussi euh, vraiment li nga xamante ni mooy problème technique yi problème matériel bi problème humain problème sécuritaire parce que yooyu aspect yooyu dafa am solo te loolu waa dialogue bi géré wuñu loolu waa DAF ak waa ministère de l'intérieur ñooy géré loolu donc bu ñu xoolee lii li mën a nekk parce que maire délai la conseil constitutionnel wax meilleur délai nag mooy délai raisonnable lu xel mën a nangu hmm. bu ñu waxee lu xel mën a nangu Sénégal yi den ci d'accord à partir de ce moment là ñu tënk ci délai bi mais nag léegi nag euh, soxlaawuñu délai bu fekkente ne xamuñu yan candidat ñooy dem élection parce que loolu mooy question essentielle bi question boobu muy deuxième aspect bi nga xam ni président nangu si sax wax wax ju leer alors que conséquence na wax nañu dix-neuf yi ñooy dem élection moom mu ni day woo ñëpp ñu waxtaan par rapport ak ñi ñu ñi nga xamante ne dañ leen recalé woon ñu leen tuddee ay spoliés mais ñooñu day mel ni kon da ngay reprendre le processus te conseil constitutionnel moom dix-neuf yi la wax donc boo fixé délai te xamoo xamagoo ñuy dem élection mais yaa ngi ci guuta ba léegi génn goo ci guuta loolu mooy suñu problème évidemment euh, nga gis ni euh, ba léegi daal xel yi dalagul euh, ñu jeexi jaaxa bi génn guñ ci Mhm. mu mel ni lëndëm na ci xelu askan wi yëpp euh, datu élection euh, bi léegi ba tax na sax moom euh, bu ñu seetloo moom nangu woon na nag li nga xamante ni mooy dogal bi conseil constitutionnel jëloon ngir ñu mën koo def dans les meilleurs mais do nangu boobu awa c'est parce que dafa mel ni ci man sama gis-gis nangu ñàkk pexe la. Hmm. parce que bu fekkoon du pression yi amoon au niveau interne mais surtout au niveau international nga xam ni partenaires sénégalais yëpp dañ taxaw bàyyi Macky na ko non non non yow moom euh, respectel sa constitution respectel nangam à partir de ce moment là bu pression yaakaar naa argumentaire bi bi Ismaïla Madior Fall waxoon moom la ñuy indi comme quoi ñoom la loi constitutionnelle bi assemblée votée mënu ko yóbbu recours de d'inconstitutionnalité en vertu de la séparation des pouvoirs donc kon argument boobu la ñuy teg mais comme gis nañu am nay pression jarul muy insister moo tax. mu daal ni nangu naa li conseil constitutionnel wax mais daf ko nangu benn euh, loxo droite bañ ko loxo gauche parce que boo ko nangoo ba pare indi dialogue dialogue bi mën na indi le contraire li conseil bi wax hmm. maanaam ñu reporter rek di dem mën nga jé mën nga àgg sax la quinze le quinze décembre bi ñu doon donc gis nga ni nangu na ko sur le principe mais au fond boo xoolee dëgg dëgg dëgg la mu nekkoon mu nga ci ba léegi de report bi mu ngi ci ba léegi moo di moo di laajoon ngir ñu jël euh, disposition yi ci war yëpp ngir ñu mën a dem ci euh, élection yu jaar yoon waaye ban at wala ban date nga xalaat ne xëy na euh, dina mën a fixer lii di datu élection bi lee am nañu doon wax ne na ay le 3 mars am ñuy wax le 8 mars et cetera bon délai raisonnable la su fekkente ni dialogue bi deux jours gisuma euh, li tax ñu man bañ a def élection yi avant le deux hmm. bien sûr na élection nag day am li ñuy wax premier tour avant yenn saa yi moom deuxième tour day am période contentieuse bu ñu ko fàtte dañuy ubbi période contentieuse donc ñu experts yu bëri sax wax ni mën na xat rek le deux day xat mën na xat et que donc mën na proroger au delà de mois d' avril dem ba mois de mai yooyu waaw juin war naa mën a nekk mais délai yooyu c' est raisonnable buñ demee un jour demee ba si télé yooyu ay mois de mois de mais ba mois d' avril mai juin mun na raisonnable euh, avant nawet bi euh, loolu mën na nekk mais yooyu yëpp waxtaan wi war na ko mën a génne euh, ñu xool li raisonnable li gën ci Sénégal pour délai yi donc comme ni ma waxoon sànq rek délai yi mën na bañ nekk un problème majeur hmm. mais nag ah, li problème majeur mooy est-ce que président day toog wala day dem. est-ce que day am keneen ku assurer l'intérim est-ce que moom mooy assurer l'intérim yan candidat ñooy dem élection euh, est-ce que 19 yi rek la wala wala dañ ciy boole ñeneen est-ce que 19 yi dañ leen di naxasaal euh, euh, naxasal seen seen seen admission wala seen jàll gi ñu jàll léegi ñu reprendre processus yëpp ak ñëpp mais yooyu c'est des questions de fond yi nga xam te ni boo ko soulever gars yi du d'accord ñii dañuy campé seen position ñii campé seen position. Hmm. su boobaa nag président danaa noonu maay décidé parce que gars yi trouvé wu ñu solution. wala mu dem au niveau du conseil constitutionnel alors conseil constitutionnel boo fa demee ñoom dañ naan man lu ma waxoon wax naa ko yéen nanguwu leen que ngeen da ngeen da ngeen dem dialogue comme si la dialogue man na décider contre la conseil constitutionnel comme si le dialogue man na décider contre la loi mais ñu ngi ci ful boobu Macky day dafa teg dialogue bi mel ni dialogue moom moo doole lépp. waaw moo doole loi moo doole institution yi. Mhm. léegi nag loolu aussi vision la boo xam ne mu ngi koy teg di ko jéem a instauré ci xelu nit ñi alors que yooyu yëpp. day dellusiwaat ci loxaam parce que wóor na que ni am na élément dialogue yoo xam ne bu ko tegee gars yi dañu d' accord ci d' dañuy aw nii ñii aw nii boobaa nag moom moo war a décider waat moom foofu. Mhm. donc mu ngi ci la mu jëkkoon nekk ba léegi rek mooy report bi euh, pousse élection yi xool nu muy toogee continuer xaw ma lu mu ci jublu mais en tout cas ce qui est sûr mu ngi ci logique boobu léegi. alors démb nag ci ay kàddoom indi na ay leeral jëm ci différence bi am euh, ci grâce bi nga xamante ne faw procédure judiciaire bi mën a mot sëkk waaye tamit amnistie bi nga xamante ne projet de loi la ñu war ko voté ci assemblée euh, nationale te loolu tamit dina effacer euh, féewu ñenn ñi. waaw effectivement xam nga grâce ak amnistie bokkul. Mhm. loolu moom débat technique la. Mhm. grâce moom da da waaye condamnation yeeg yëpp daf fay des ci dossier bon day fekk nag comme ni mu ko waxee procédure yi jeex maanaam mu définitif ñu àttale définitivement nga war a tëdd sa peine boobaa mën nañ la gracier nga génn féex bokkul ak amnistie amnistie day effacer les faits booy def loi d'amnistie doo ci tudd nit doo ci tudd nit da nga naan amnistie naa ku defoon nangam rek amnistie nañ la nii léegi période sàngam ba période sàngam. Mhm. dafa ku defoon nangam ak nangam ak nangam baal nañ la maanaam amnistie maanaam effacé nañ lee faits ba nga xam ne day mel ni amul woon comme quoi condamnation bu ci mus a am wala dara dañ koy effacé mu mel nii yow da nga nekkaat à zéro donc loolu mooy amnistie bokkul ba léegi ak grâce léegi nag amnistie bi muy wax évidemment mën na concerner ay Ousmane Sonko mën na concerner ñeneen mën na concerner ñenn ñu nekk moom ci partem parce que xamuñu yan fee la ñuy amnistier foofu aussi président leeralul. Mhm. leeralul aussi ban séquence de temps est-ce que mu fi nekk yëpp la wala de deux mille vingt et un à deux mille vingt quatre est-ce que yooyu lay wax bon yooyu aussi xam nga bu fekkee dafa fa bëgg ñu dialogue ko évidemment il faut mu jël temps kon ni ma ko waxee rek dialogue bi dafa mel ni dafa gàtt délai bi dafa gàtt ci man parce que bu nekk quarante huit heures nga bëgg waxtaanee lu am solo yooyu te dialogue bi dafa war a woo ñëpp ñu ñëw te ñëpp bu ñëwee gars yi bu ñu d'accord ci lenn. alors loolu 48 euh, heures yi est-ce que du gàtt loolu aussi mooy sama préoccupation majeure la. alors mu mel ni moom pare na ngir mën a juboo jàmm mën a dellu si tamit euh, ci dëkk bi. waaw loolu la wax de. Mhm. loolu la wax de. ci ay kàddoom mhm. loolu dañ koy jàpp ni moo gën ci moom moo gën ci teram moo gën ci Sénégal. Mhm. parce que boo dee dem nag wax dëgg yàlla di tàggoo ba sañoon bàyyi sa njaboot si jàmm. donc comme politique moom xeex na di politique njuuj njaaj xeex ba egsi fii. teg ay stratégie euh, dañuy retenir si moom comme un président très stratège lu wàllu jëm ci politique waaw quelqu'un boo xam ni vraiment may musul may opposition daraam quoi dara léegi nag buñ ñu essayé à la fin am na ay médiation médiation Alioune Tine et Atepa et pour que ñu bàyyi peut-être les Sonko et autres mais yooyu nag dialogue la laaj est-ce que waxtaan nañ ba pare wala déet parce que bàyyi nañ ñu baree baree bari est-ce que waxtaan yi dafa des est-ce que waxtaan yi dafa war a amaat wala amul woon mu war a am yooyu yëpp ay question lay xam opinion bi xamuñu ci lu bëri te euh, Khalifa Sall sax boo ko ci ginnaaw doon laaj ci mel noonu est-ce que dañoo deal est-ce que dañoo dialogue ci suuf entre patriotes yi ak euh, li nga xam ne mooy la majorité mhm. yooyu yëpp ay question la xam ni amuñu ci ay tontu mais ñun daal li ñu soxal mooy Sénégal ne ci jàmm te pour Sénégal nekk ci jàmm dañuy respecter droit ñëpp moytu effectivement di utiliser justice pour euh, faagaagal sa adversaire mais aussi wala euh, ñi nga xam te ñoo def opposition aussi ñu moytu violence li jëm ci violence yàq alali jàmbur faat nit gaañ nit aussi loolu aussi euh, que ce soit muy force de défense et sécurité que ce soit citoyen képp ko def rek dañu war a situer responsabilité responsabilités mm-hmm. beneen bi nag mooy grâce buñ koy kii buñ koy wax amnistie buñ koy wax aussi du tax ñuy amnistier wala ñuy gracier ñi nga xamante ni dañu def ay délits de droit commun yu ba jëm ci euh, yàq rey taal lakk euh, amoon ci biir peut-être ay sàcc amoon ci biir peut-être ay agresseur mais ñoo ñëpp dañ leen war a saytu seen i cas comme ni ko ministre de la euh, justice waxee cas par cas mais ñi xam te dañ doon ñu xam ne ñii gàmm ak ñi raas dem ñii gàmm ñu xam ne dañ doon gàmm ñu doon raas dem ñu teg leen ci yoon loolu aussi il faut que ñu ñu xàmmee loolu mm-hmm. def différence Assane Samb jërëjëf may fàttali rek na sa xel dafa màcc jëm ci wàllum politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf Awa jërëjëf merci à vous et bonne merci à vous et bonne continuation merci à vous et